d'abord di sant yàlla bu baax euh, di gërëm suñu waajur di gërëm président de la république euh, message boo xam ne rek message bu jàmm la message boo xam ne ba ñu président de la république dogal ci li ko yàlla may force sénégalaise dañu euh, dañu réaffecté en attendant bari na vraiment ay intervention bari na euh, ay commentaires ñu ne woon na baax na ñun ñi nga xam ne ñun la mesure concernée ñu dalal xelu nit ñi ne leen euh, jàmm kese la euh, président de la république moo am dogal saa su nekk heure bu ay fonction nga xamee ne war na jax mu ne diw mën nga dem fële wala mën nga dem fii yàlla def na nag ba ñu cinq ans la ñu def solde mu xaw a yàgg lool président gis ne baax na mu àndi keneen loolu dafa nekk loo xam ne lu jàddu la lu ko charte réew mi may la li ci des rek ñu xamal ne dañu nekk ci contexte électoral bu xaw a doy boo xam ne xëy na booy dégg yenn baat yi wala nga dégg yenn kàddu yi mën na yëf fitna moo taxoon suñu responsable suñu camarade yi nga xam ne ñu ngi ci majorité Benno Bokk Yaakaar ñu deen ne ñu jàppale président de la République sincèrement ñu jàppale ko sincèrement ngir fitna bañ a yeewu ndax Sénégal dafa soxla jàmm tey ñu jàppale président de la République aussi di bañ di utiliser seeni position administrative pour des règlements de compte yaakaar na président ku ko yoxalul waroo ko wàññil te président dañ ko war a jàppale bañ ko àndil ay noon loolu responsable bu nakk war nga cee bàyyi xam di leen xamal ne aussi administration bi ñu nekk dafa nekk une administration boo xam ne administration bu mucc ay la ñu fekk ci ay nit ñu mucc ay ñu formé ñu jàppale ñu te it ñun ñu def noonu jàppale suñuy rakk ak suñuy collègue administration bu aussi dañu gëm ne képp koo xam ne yaa ngi ci nekk comme responsable lii la gën a war mooy nga xool nan laa gën a mën jàppale sénégalais bu nakk ndax li mu bëgg mu am ko bu ñibbee këram aussi xolam feex mu xam ne dogg naa ci béréb diw bureau tel mais wax dëgg yàlla ba ma fay génn sama xol fex na mission boobu la ñu doxoon tey pour solde moom la ñu dox mos dox te ëllëg it moom la ñuy dox président de la Macky nag du post moo ñu boole euh, yàlla mooy boole ay nit dañuy jàpp ne ndogalu yàlla la te lépp lu mën di xew yàlla kese la dañ koy remercier bu baax a baax gratitude bi nga xam ne avec gratitude ci li nga xam ne dénkoon nañu ko euh, di ko sant aussi te di ko ñaanal yàlla yàlla may ko ndam ci li nga xam ne moom lay yottu di élection législative yi waaye nag ah di wax aussi ci li nga xam ne lu néew la ñu jot am ci expérience ci gestion de la solde xamal ne service public yi nga xam ne tey ñu ngi ci ay loxam ci dogalu yàlla ak kantanam service yu ñu war a gën a mën a dooleel la ñu ñu gën a mun a jox gëdd la ñu war a gën a mun a moderniser la pour que coono Sénégal yi continuer di di wàññeeku euh, leen xamal ne it euh, ci wàllum euh, kàddu yi nga xam ne moom la ñu bëgg a partager ak opposition bi dana Sénégal patrimoine la ñëpp ko bokk te patrimoine boobu kenn war ko yàq ngir nguur wala ngir position wala pour élection lépp lu mënti am rek yaakaar naa war nañ ci ànd ak dal ànd ceeg sérénité ànd ceeg njort bu rafet mais ànd ceeg aussi yéene sénégalais yi jàmm ndax lu mën ci am ci développement bu jàmm amul amatul njëriñ euh, di gërëm bu baax te di sant autorité religieuse yëpp kilifa diine yëpp ci li nga xam ne wax dëgg yàlla sekk nañ ko muy jàmm muy ñaan te saa su nekk Euh, li ñuy mujje ci seen wax ci seen kàddu euh, ci seen euh, message nam fépp foo xam ne fa la fa nga war a sonne yal na dëgg sonal lépp loo xam ne yaa ngi ko sumb yal na ko dëgg lal lépp loo xam ne yaa ngi ciy liggéey et heure bu nag saas bu nekk yàgg-yàgg ak lu mënti xew dëgg rek mooy mujj donc tey damay gërëm sénégalais yi baax baax gërëm suñu compatriote ndax liggéey bi nga xam ne dañ ko doon def ci kàttanu yàlla président denkoon ñu ko liggéey boobu liñ ci jublu woon mooy rek seen coono wàññeeku mooy ñu am ci jàmm mooy Sénégal am ci ndam maa ngi leen di gërëm di leen sant ci li nga xam ne euh, wax dëgg yàlla ñu ma koy jàng bu léegi di ñu félicité di ñu dalal euh, di ñu ne it ah xëy na peut-être leneen mooy ñëw. leneen loolu nag leneen loolu nag dama koy wax fi tey euh, dama koy waxaat pour nañu xam président de la république du poste moo ñu boole yàlla moo ñu boole.